Moustapha nawaytuma yu jaddidu sunnatoo xarraa wa indi ahmadu di wax rek jërëjëfati borom tubaa jërëjëfati borom tubaa jërëjëfati borom Touba ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci Seydouna Muhammad sant si Ahmadul Bamba Xaadimu Rasul borom kenn ku ne xam na ne sëriñ tubaa fi mu tegoon sahur mu mubaarak ci la waxoon bi mu dugg mu wax yaa xayra day fil ata ba mu jib mu wax ko yaasal bu saaraati nga xam ne woore na fu nekk ci dëkk yi nu xam ak yi nu xamut nga xam ne nekkul woon ci lenn kennal yàlla sunu borom ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam juróom benn weer da koy julli ci moom juróom benn weer yi mu ko koy mu ko koy taggee waaye kenn suñu jàmbaar ja Serigne Saliou Mbacké nga xam ne moo taxawoon ci njaarim ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba defoon ca mag ña ndawi Serigne Saliou nag foofu la teg seen bopp ci ñooñu leen gëm ne ca leen bokk ndax daanaka booy xool taxawaay bi yàggul yàgg na ndax amagul ñaari at ci ab taxawaay waaye ku baax ki dafa wax ma fàttali ko ci tuuti rek ci naka la ndawi Serigne Saliou def ak ajuma ndax su ma juumul jëwriñ bisub ajuma la njëkk gis doomi Serigne Saliou muy Cheikh Abdoul Moutala fecc janatul mahwa bisub ajuma la ndawi Serigne Saliou njëkk a daje biir kër Serigne Saliou ca xayga kon mën naa yem ci loolu rek ci leeral bisub ajuma la Serigne Saliou gane àdduna bisub ajuma la ñibbi aljana kon ñun ndawi Serigne Saliou ajuma daa am lu ñu suñu borom defal loo xam ne ci tënk rek àjjuma bii di ñëw rek bu delsee ñi ngi war a amal rencontre général fee ci diwaanu cees war faa wane jëfi sëriñ Saliou waaye damay ñëw rek ci laylatu xadar ni ko Serigne ba fonke woon ba ci soxna May ndawi Serigne Saliou li nga fi gis nii daanaka jeune Dakar bi xaaj xaajaat bi ñëw ñu ndax daanaka jege nañ 300 personnes wala 250 et quelques. daanaka bi mu desee une semaine deux semaines ñu dajale suñu ñaar téeméer ak suñuy fukki dërëm ne dañ koy togg ay bernde daanaka joxe fi ay ndogu di waajal xëdd yi ak reer yeeg ak yeneen. waaye lépp dañ koy sant Serigne Saliou ci ak leeral la kuréel gi ni mu doxee moom mën naa yomb ndax fenn laay commencé rek muy ku ci toog ñaari yoon joxu dañ lay retiré loolu moom ñëpp xam nañ ko. maam Serap Fall yoonam bi dafa waxoon ne sama yoon yu ma xàll du yoon woo xam ni ñi dañuy toog dañuy dox di dem kon yooyu nag ku doxut dem kon boobu bokkoo ci. waaw daara ndaw Serigne Saliou moom comme ni ko sunu jëriñ ñi waxee rek waaw maanaam dañoo sumbub liggéey te liggéey bi ñu sumb maanaam daa àndut ak te ndem nag sunu slogan moom mooy dox dem waaw kon maanaam mbokk taal bi yëpp xam nañ ko ci ñun waaw ñun daal maanaam li ci sunu kanam la ñuy xool lu ñu weesu weesu nañ ko waaw liggéey bi moom yomb na yombut waaw yomb na yombut ndax maanaam jëf moo fi am waaw amul nemm nemmal ku mën a jëf nga ñëw ñu jëf ku mën a jëf toogal xaar ñun dañuy jëf waaw bis bii nag maanaam sunu borom dafa dogal daaw lañ ko fi njëkk a def waaw ñu fi ñëwee indi sunu ñaq maanaam mu néew mu bari ñu ñëw barkeeloo ko ci bis bi. waaw sunu borom dogalaat na ren ñu fekkewaat ñëwaat fi waaw ñi ngi sant yàlla nag bu baax ndax maanaam gis nañ ci tawféex bu baax bañ ko defee daaw ren rëccuwuñ ko. waaw di sant yàlla di ñaan déwén maanaam ñu mën lu ëpp lu ñu mënoon ren waaw bépp mbokk taalibe nag bi nga xamante ni maanaam yaa ngi féete fii ci ndakaaru waaw ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm di wax ni maanaam gis nañ taxawaay ci liggéey bi mbooloo buñ ko séqee maanaam ñii dañuy jàpp fii rek ñii jàpp fee maanaam kenn mënul dajal lépp waaw te nag wax dëgg yàlla boobu ba léegi waaw ku nekk maanaam mi ngi ciy def lu mu mën ku nekk mi ngi ciy def li mu mën maanaam ku nekk fa nga nekk yaa ngi cey def li nga mën waaw te loolu moom ak cant la rek ndax loolu moo ñu boole waaw ndax ñun Serigne Saliou lañ bokk te mënuñu ko séddoo ndax fii ñii nga fi gis ñëpp dara ñoru leen dul Serigne Saliou